bul fàtte ne Moustapha Cissé Lo lui il parle de surfacturation. est-ce que au-delà de surfacturation. moom dépassé nañ ko au-delà moo amul ceeb maa la ko wax tey. mais li ngay wax ni li ngay wax ni euh, grand ah, Omar c'est très grave parce que on est dans un état aussi. mais attends amul ceeb te bul fàtte ne cent quarante mille tonnes. Mhm. bato xam ñaata ñaata tonnes lay def quinze ñoom ñu ngi wax dix mille tonnes mais dix mille tonnes ban bateau ko indi nañ la woon bateau bi un di di chaque fois booy booy kii da ngay dédouane damal douane ñu wax la kii bi ñu génne la kayit gi bu wane na ñi ils ont mis tant de tonnes de riz la douane à jouer dans dans ce la là rien achève moom cest à amul dañ ne trompé profito précipité affaire yi yàkkamti ko génn ceeb ñu ne commencé nañu pour que Wadi gagne le marché. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Euh, alors à ce moment, on a insulté le secteur privé national. ñoom ñoo fi nekk di xeex. grand Oumar pour faire euh, vite rek parce que temps bi euh, daf ñoo xaw a xooj mais est-ce que bu ñu toppee euh, si polémique ceeb polémique diwlin polémique octroiement marché bu ñeel wàllum transport est-ce que état bu Sénégal loolu du ko dévier ça c'est dévier autant pour moi si objectif yi nga xam ne moo nekk xeex lii di coronavirus en plus aider la population à se soulager parce que xam ne ni population fu mu toll nii dañoo xiif. loolu waaw xam nga loolu sax feebar sax mën nga ko gérer mais xiif moom beneen affaire la. Mm. cest à tey dañ ñu désorienté c'est-à-dire instant bi ñuy wax ceeb di wax diwlin di wax di wax suukar di wax saabu. Mm-hmm. alors que pandémie bi feebar bi mi gën a yokk ci réew mi donc ñoom au lieu ñu seen xeex ci nan la ñuy def pour xeex ko pour xeex lii nga xamante ne mooy coronavirus bi ñu ngi ñuy bàyyi ñu nekk si ceeb beeg diwlin beeg ak suukar seeg ak yooyu et loolu c'est extrêmement mënuñu di dee. nga ñuy jox ñuy lekk ku dund loo ko joxe mu lekk. Mhm. te pour ñu dund. même le comité de suivi comité au delà au dafa am benn affaire parce que damay gaawantu comme ni ko wax. Mhm, mhm. le baril du pétrole à vingt et un dire tey yow la question que vous devez vous mooy nguur gi lan moo tax biñ fi nekkee ba léegi baril du pétrole di gën a wàññeeku te ñoom denrée yi mënuñu ko wàññi c'est-à-dire que tey à la place de li ñuy def nii. ñoo ko tey profité wu cest dire que ils ont anticipé sur ça. mais li ñu def nii mën nañu ko def autrement. Mhm. pourquoi lan moo leen tere tey l' état du Sénégal est en mesure de vendre le sac de riz à 5000 parce que la baril du pétrole a chuté jusqu'à. a chuté gravement gravement. Mhm. maintenant lan moo leen tere ñu subventionné noonu nga xam ne yow mii tey bu la yàlla maye nga am 20 000 parce que ñun nous sommes dans pays de solidarité mhm. bu la yàlla maye 20 000 mais ci weeru koor bi nga jënd ñeent saako ceeb jël sa saako ceeb dugal sa kër jël yeneen ñetti saako ceeb may say dëkkatoo. d' accord loolu mënoon na nekk. Grand Omar euh, ñu avancé euh, tuuti par rapport ak comité de suivi bi nga xam ne général François Ndiaye euh, moo ko jiite nga xam ne fu mu toll nii regroupé nañ sax trente membres nga xam ne société civile beek opposition beeg ñoom i seen bokk nañ si ñu gis ne carrément madame Yacine Fall qui est un grand économiste on l' avait choisi waaye moom elle a préféré dire no parce que dafa jàpp ne comité de suivi farce la ndaxte comité de comité de pilotage waroon teg est ce que vous êtes d' avis. comité de pilotage. Mhm. ak comité de suivi du benn. comité de suivi mooy. Mhm. dispo du ñu jël mesure yi ñu jël concrétiser ko. Mhm. ba ñëw xool est-ce que loolu am na. yow amoo si benn droit de. non loolu constaté rek ngay def. c'est yooyu yooyu loolu sax la partage. amoo benn pouvoir. amoo benn pouvoir de prérogative. mais soo loolu ça n'a pas de sens bu fekkoon ne yow dañu mettre tous les moyens à disposition. dire que maintenant nii ak nii ak nii la ñuy defee par rapport ak Covid 19 parce que Covid 19 bi moo tax ñu teg comité comité boobu nag moo war a dans tous les secteurs lu gars yi soxla si Covid 19 bi maintenant si foofu nga war a jaar ñoom ñu rendre compte mu am toute transparence lu ñu soxla ñu def ko. Mhm. sa à dire que regarde tey aujourd'hui tey boo demee au niveau de la police mais police ba léegi amuñu ay masques ba léegi les policiers sont exposés. d' accord tey pour ñu am grand Omar euh, ñu avancé wax suñu dernière euh, partie émission mu ñeel annulation dette bi nga xam ne président de la république euh, Macky Sall ak it ay ñooñam brandir nañ ko sur la table pour wax g ñoom ñoo annulé leen ko mais dafa mel ni G20 moom dafa préféré vers aller vers un moratoire selon yow est ce que c' est légitime de demander l' de la dette africaine. newuñu newuñu si priorité boobu c'est-à-dire que actuellement il cherche à être le en Afrique. Parce que Paul Kagame va partir. De Brigawad, waat se un mandat. Maintenant, mon fonds n'est en position de leadership africain. Boyset, sa contribution qu'il a fait en tant qu'Africain, en tant que africain rentre dans cette logique. Ben, il a faire un nouvel ordre mondial. Alors que le nouvel ordre mondial, quel est le contenu de ce nouvel ordre mondial. Mm. Parce que l'ordre aussi d'avoir un contenu. Donc, il faut actuellement dans une position de loolu moo tax muy def li muy def yëpp regrouper maintenant tous les pays africains à ce que ñu ànd de en ce moment les africains sont en train de mourir avec avec avec avec le coronavirus tubaab bi du ñu ànd det bi. wu tax parce que dañu seen seen sikkim moo lakk mënuñu lakkale ba pare ñëw yow di nga ngay lakkale dëkk àdduna bi yëpp lakkale ñoom xamuñu si li ñuy mujjee ñu ñëw taxaw ne dañ lay ànd det bi det bi va servir d'épée de dinañ gën a def le tout pour gën la endetter pour que une fois ñu génn situation boobu ñu mën a gën a mën a am mainmise sur l'Afrique pour gën a comment dire sucer ces ressources yi nga am mais ñoom moo tax ñu defal la moratoire mais annulation dette ñoom ils ne le feront pas et puis pourquoi ñoom pourquoi ñun tey ñu yàkkamti coûte que coûte Macky Sall veut que l'on annule la dette. c'est parce que c'est parce que on est à un niveau. Mm-hmm. de plus de dix mille milliards de de souveraine ak yeneen presque deux mille milliards yoo xamante ni dette intérieure la donc yooyu boo ko boolee day doon dix mille milliards alors que cette dette là actuellement il y a des problèmes pour les payer dans la mesure où ñun nous sommes un pays qui ne produit pas nous sommes un pays qui ne fait que consommateur qui ne qui ne te yooyu c'est des choses qui posent problème parce que booy seet au niveau la douane douane booy seet li ñuy li nga xamante ni ne moom la ñuy collecté en terme en en en terme en terme de weesuwul 1000 milliards. d'accord euh, grand Omar pour faire euh, est-ce que c'est bien beau de demander euh, annulation de la de la dette tout le monde applaudit mais est-ce que tamit gënutoon pertinent bu ñu laajoon euh, waaye euh, la France euh, suñu devise yu ñu dencal. loolu mooy suñu xaalis c'est-à-dire c'est-à-dire xam nga tey France Europe waxuma France suñu devise moom moomu France suñu xaalis dañ ko war a jël ñoo moom. Mm-hmm. mais il faut nga am un leader parce que on peut pas avoir un leader boo le délégué de quartier parce que aujourd'hui on a un président boo xamante ni c'est le quartier de la France li ko France di wax moom lay def dañ ko takkal ay arrière te yooyu doo bon Macky Sall am na yenn di am na responsabilité yoo xamante ni am na yenn discours yoo xamante ni sànni ko tenir devant Macron ou devant a puissances devant des puissances mm-hmm. osé wu yomb na ñoom ñoo koy produire ñoo koy ñoo koy créer bu leen neexoon tey léegi indi fi mille milliards. d'accord boo demee euh, Europe. bu la neexee indi mille milliards mais nous on a un problème de monnaie. d'accord on a un problème. de, de souveraineté parce que ñun ah non amuñu souveraineté monétaire. maintenant ñun on a un problème de de fabrication lu ñu tere ñun ñu créer une unité de l'Afrique une unité métallurgique créer notre propre monnaie. di produire de l'argent comme ce que fait l'Europe mhm. comme ce que ce les États-Unis euh, grand waxtu bi xooj nañu lu ñu bëggoon wax yëpp mënuñ koo wax mais dama bëggoon rek en deux minutes euh, ban jàngat nga am ci président malgache bi nga xam ne nee na découvrir na luy faj coronavirus artémisia bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci faj lii di paludisme mais on a remarqué une désolidarisation ci pays africains yi non xam nga xam nga tey il faut nga xam ne il a une guerre des sociétés pharmaceutiques mhm. guerre boobu dafa am. Mhm. gis nga euh, euh, Raoul bi ngay dégg nii. Mhm. ñu ngi koy menacé de mort et tout. Mhm. ça rentre dans une parce que les sociétés pharmaceutiques qui sont en en Europe ou en France en Europe aux États-Unis ay ailleurs dañu investir ay milliards pour trouver un vaccin. pour que vaccin boobu il faut ñu trouver ko contre le coronavirus ñu mën ko jaay. am ci ay milliards et des milliards. donc nous les pays pauvres nous les africains lan moo waroon nekk suñu taxawaay par rapport à ça. non suñu taxawaay mooy dañ ko waroon soutenir. Mhm. accompagner ko parce que dinaa la wax feebar bu am ci àdduna yàlla créé na garab. surtout les plantes médicinales mais les plantes je parle yàlla créé na plante moom la ñu da koy faj maintenant leneen rek fulla la ak fayda. te ñoom ba tey ba ñu génnee euh, médicament boobu ba tey ñoo na benn cas de coronavirus. ba pare amul sax. benn pays africain actuellement parce que xam nga chloroquine bi le président en a parlé. Mm-hmm. mais pourtant kii c'est un africain. Mm-hmm. un président africain maintenant moom bu ko trouver benn remède la moo leen tere ñoom ñu ne remède boobu dinañ ko essayer accompagner ko dans cette logique pour war na ne par exemple il n'a pas cette unité-là n'existe pas. Mm-hmm. te l'Europe les États-Unis les grandes puissances. tant qu'on peut ñu def mukk loo xamante ni ne. au niveau de l'Afrique il y aura une unité métallurgique. Mm-hmm. du seen du seen loolu du seen du seen du du seen liggéey du seen ko. grand maag li ñu euh, oh. <laughs> waxtaan bi neex na lu ñu waroon wax yëpp euh, xajul si benn émission xam naa ne incha allahu rabi euh, di nga jaaraat rek yu gën a toj. merci beaucoup ça a été un plaisir. c'est dommage qu'on n'a pas parlé des camions. waaw parce que camions yi. dafa am ay yu affaire yu bëri yoo xamante ne moo ci am. Uh-huh. surtout c' est des camions Synétruc. Uh-huh. de deux cent cinquante milliards yoo xamante ne c' était pour le renouvellement. Mm-hmm. du automobile mm-hmm. mais li ci am yëpp malheureusement temps bi dafa xat. Mm-hmm. mais bu ñu si waxtaan bu beneen yoonee. incha allah dinañ xamante ne di ngeen xam ne le secteur privé national bi kenn jàppale wu parce que camion bi. Euh, euh, Maroc lañ ko Maroc mhm. te pourtant Chine lañ ko construire. merci beaucoup merci beaucoup di rafetlu euh, sa xalaat comme à chaque fois chers internautes yu Sénégal 7 yéen a ngi doon suivre sànq ba tey suñu émission spéciale Covid 19 ko ñu koy defee saa su ne aujourd'hui je recevais le grand Oumar Faye il est le président du mouvement leeral askan bi ñu loon waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na feebar bi di Covid 19 ak xat-xat yi nga xam ne nemmeeku nañ ko si par rapport ak feebar yi nga xam ne président de la